audu billahi min asheytaani bismillahi irrahmaani irrahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi noo leen di nuyu di leen siyaare noo ngi ci juróom benn fukki la jotaay ak juróom benn ci téereb Xalimag Leer ba tey ngi ci xasida ak jaawartu waxoon nañu ne mooy xasida gi ñu mujj indi ci téere bi di xaaj bu njëkk bi xasida la goo xam ne nag ba tey seetlu nañu bu baax a baax tolluwaay yi ci sëriñ bi di waxe tolluwaay yu yéeme yéeme la ci diggam ak boromam indi na ci ay may yaatu di ko tudd ngir sante ko boromam ci defal gi mu ko defal loolu bokk na ci may yooyu wax na ne wax na ni sunu boroom mayam yi ma jox saxaaral na ma mbooleem la gaañu baax ña doon xemmem gaañu tedd ñi daal lépp luñ doon xemmem rek sunu boroom jox na ko ko te muy lu sax ci moom du jóge ci moom mukk xibaatu dil jalaali wal ikraami li xallilat muraqi wal kiraami lépp luñ doon xemmem ci yàlla te mu jafe loon moom yàlla defal na ko ko mu ngi feddali ba tey ci xasida gi dëkkaale gi mu dëkkaaleeg yàlla ba tax mu wax ne amuma jenn sikki sàkka ci doon gi ma ci doon gi ma doon dëkkaaleb sunu borom tey kéemtaan ci mboole mbindeef yi lastu ashuku abadan fi kaw nii jaaral bali ajaban lil kaw ni ku ne xam na ni Sëriñ Tuubaa moom kenn kéemtaanug yàlla la goo xam ne mbindeef yépp a di ko yéem ci ak dundam li mu jëf ci kaw suuf ay jaar-jaaram farlu gi ak pëstéef bi diggam ak boroomam ak diggam ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rawatina li jaare ci mbind mi nga xam ne moom lañuy ñuy jéem a leeral mësuñu koo dégg ci jenn jëm moom day jëm joo xam ne xeetu dund gi mu dund mësuñu koo dégg ci kenn ci ñiy nettali seen mboor maanaam seen histoire loolu nag am na bayit wu ñu waxoon ca ginnaaw woo xam ne dugal na lépp ci biir muy xostu xayaatan laa tura li xayri mojisatan baanat li usni xayri làq naa xeetu dund koo xam ne dee si ko gis mukk ci kudul man la tax ma am loola nag mooy daa bokk ci kéemtaan yi yonent bi salallaahu alayhi wa moom jëmmi sëriñ bi daa bokk ci moo ci saatu nabi salallaahu alayhi wa sallam kéemtaan yonent bi salallaahu alayhi wa moo tax mu ne ak dundam dund gu mel kenn mësu koo gis ci kudul moom xéewal yi mu làq te kudul moom it amu ko indi na ko ci uh, jaawar daa wax ne li nga xam ne làq naa ko mu bàyyi ko ci yàlla sunu borom fàddu na ci mboole mbindeef yi maanaam kenn amu ko inna alladi min al ilaahi xustu fii anil kawni wa mbokk yi kon noo ngi yam foofu bunu nu dellusee yeggale xasida gi allah assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa